te ñooy layoo seen liggéey kon nangeen leen déggal ngir ñu mën a def seen liggéey ak xol bu sedd bañ cee am naqar ndaxte loolu du leen amal njariñ dee leen nu ñaanal wóor nanu ne sunu xel del na ndaxte danoo bëgg rafet ci lépp lu ñuy def maa ngi leen di xiir ngeen ñaanal nu ba tuur seen ñaq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 maa ngi leen di ñaan ngeen tegoo baat yu yedd yooyu ndaxte dama leen bind ci lu gàtt xam leen ne timote sunu mbokk génn na kaso su dikkee léegi dinaa ànd ak moom seetsi leen nuyu leen ma seen njiit yépp ak gaay yàlla yépp waa itili ñu ngi leen di nuyu ne yiwu yàlla nekk ànd ak yéen yépp